le président Macky Sall. je vous dis que ne moi Waly Sow Karano Réni je suis totalement derrière le président Macky Sall non président bu gore la parce que ce que a dit le président tout jeune le président daal ñu di que ni Thiès si vous vous avez suivi kon du ma ñëw ci yéen di wax ak yéen Thiès bay la li ngeen nekkee Thiès yéen a ngi yàq Thiès yéen a ngi yàqal seen bopp ku ñëw ngeen xas ko rébellion ci lan nit ki da ngay rébellé ci lay bëgg a lor mais lay jëriñ da nga koy accueillir accueil bu chaleureux tatagal ko teral ko mu teral la parce que le président Macky sal c'est un président généreux man je dis ni le président Macky Sall c'est le meilleur des créatures de l'art politique depuis l'indépendance waaw non non non c'est comme ça la vie man doon laa gisee le président Macky Sall kon il faut l'accepter c'est l'œuvre de Dieu Macky Sall c'est quelqu'un de bien kon acceptons-le ñi des nag parfois je dis que ni nit ñi dañuy penser que ni waaye saw et là en tant qu'opposant di opposé wu ak son propre frère je le dis au point vous n'avez rien compris man j'ai soutenu le président Macky avant son accès au mon frère est maire après le de Macky je ne peux pas mon président à cause de mon frère kon ça va à quoi mooy benn intérêt personnel te ñun dañuy battre du mën un combat pour Sénégal émergent émergence boobu Sénégal bu ko président Macky Sall def ak ay ñoñam ñooñu di ko man je suis totalement derrière le président Macky Sall maire ou père je suis le derrière le père de la nation l'honorable président Macky Sall ñoo faut que les gens le sachent en tout cas ce que je dis mooy le président Macky Sall moom en personne naa xamal ni ko li mu waxoon dëgg mais bu mu tax benn boobu Thiès bu mu tax bu njool jël toute une région toute des régions bëgg leen sacrifier du ñu ko nangu gore na dinañ ko fekk ci ngoram mooy mu xamal ne l'opposant perdant là les mauvais perdants je l'ai dit mooy ñu xam ni le président Macky Sall dañ koy soutenir de fond ñoo dama bëgg ñu xam loolu ñu xam ne ñu nous sommes totalement derrière le président Macky Sall et qu'on n'accepte plus qu'on ne prenne comme des armes de guerre ay Thiessois toog bu ngeen demee jël utiliser ñëw taxaw télé ñoo ngeen ñëw jékki-jékki taxaw oh booy élection booy élection ñu taxaw ñun ñu nekk à transfert à mitrailleuse ou en bombardier nga utiliser ñu rek rek rek ba mu jeex après tu pars sans te repousser li ñu bëgg ñu xam ne Thiès waay au lieu ko ñu la armée de guerre dañoo bëggoon ay guerriers ci boppam des guerriers kii son engagés pour soutenir leur nation pour soutenir le président un mouvement nommé tous ensemble c'est un mouvement élargi mouvement bu vaste la dañoo bëgg ñëpp ñëw dugg si coordonnées beeg ude beeg les élèves les étudiants et tout le monde amul frontière c'est un mouvement boo xam ne ça peut même parce que tous ensemble bàyyiwul le Malien bàyyiwul le Tchadien kenn qui au Sénégal est un te mu on est Sénégal on est totalement avec toi loolu la nag initiative bi lañu jël dañ koo jël par la grace de monsieur Pape Siré Dia moom mi nga xamante ne mooy directeur DG bu poste Sénégal Pape Siré Dia doon ab jàmbaar bu wóor Pape Siré Dia ñu bokk gëm-gëm nag ma nag moom pour ngeen xam ko du Pape Siré Dia moom mooy indi APR Pape Siré Dia ma fekk ma nekk biir APR ak d'autres leaders sonn trop. répondre ñu benn appel pour la population pour la région de Thiès Pape Siré Dia lu mu yëg loo xamante ni lii day metti yéen Thiès soo Pape Siré Dia jël ko récupérer ko taxaw ci di ko defal doomu aadama yi di ko defal boppam nag c'est un pur musulman di ko defal islam di ko defal nga xam ne moo di président Macky Sall pour émergence Macky Sall di woote émergence Macky Sall di woote su ngeen ko bëggee gis dëgg dëgg dëgg dëgg xool lañ ci Pape Siré Dia parce que émergence weesuwul emploi financer jigéen ñi financer ndaw ñi dimbali nit ñi ndax defe naa ne kër goo jël dugal benn sàkku ceeb dund la téeméer fa nekk dimbali nga ñooñu une bonne fois ma leen di xamal benn affaire ni leen dama bëgg ngeen wax président Macky Sall ni ko président Macky Sall dañ koo sas lu diis barke Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul muy la Sénégal mu jëlee ko fu mett nag ci loxo le président sortant maître Abdoulaye Wade ñu koy félicité de passage parce que au moins il a fait au moins le minimum dafa Sénégal mais dama ni la fi mu Macky Sall jëlee dëkk bi metti na trop. kon dama jàpp ni une nation une nation barke sëñ Touba c'est une jeunesse te ci une jeunesse bien déterminée bien engagée moom mooy soutenir sa nation mooy soutenir son président je crois que ni war nañoo éveiller xelu jeunes yi ba ñu jàpp ci loolu def ko baax seen xel lu waay def ba mën cee dimbal président na nga ko def mais Thiès boo toggee di naan lay gëmloo ay kaay fii baaxul fi baaxul te pourtant fii ba baax je fais de la menuiserie. quelqu'un d'autre fait quelque keneen ak keneen kenn ku ci jàpp dara bu jàppee taxaw bu la ci Macky Sall fekkee dimbal la ku weer 10 000 di liggéey bu ñu la joxee 35 000 tu peux partir avec waaw li ma leen xamal nag mooy ngeen bàyyi di wax ni man Waly Sow damay concurrence aw ma morom ci politique fii à Thiès o Sénégal ma formation politique dépassé na bu ñii barke Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul Yankoba Diattara mi nga xam ne c'est un poulain à Idi maa ko njëkk indi si kër gi mu taxaw di fi réunion maa ko njëkk indi Grand Thiès mu taxaw accompagné de Ahmed Mbaye mon frère ak Dene Ba mon ma leen di wax loolu ngeen xam ko je ne suis pas un petit en politique je ne politique dama leen koy wax. ngeen xam ne nag ñi ngeen may tëkkaleel dem bay wax naan waali saw waali saw waali saw barki si xamudu Kara Mbacké Ndoury ma di leen xamal leen ñooñu c'est les poulains de Idrissa Seck te ñun sont pas mes adversaires mon adversaire politique. mooy c'est le plus responsable de tout ce qui se passe dans de Thiès ki nga xam ne moo tax ñu traité ñu de barbare traité ñu de sauvage ñu di leen traité de tout mooy seen waajur mu Idrissa Seck moom mooy sama barke Cheikh Amadou Bamba je sais très bien ce que je dis c'est très bien ce que je fais je ne dis pas ça pour may lancer wala non dépassé naa foofu je ne fais que soutenir mon président en tête haute barke Sëñ Touba comme bii ma dëkk sama réputation seet na fi. cees gi ma nekk xam naa li fi nekk kon donc war naa fee mën a taxaw Thiès wooteel président Macky Sall pour wax ak nit ñi lan exactement la doomu adama taxawee ci dëkkam nan la doomu aadama taxawee ci réewam pour dimbali réewam dimbali askanam jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi sonn di dëkkar kasew di bale mbedd mi jigéen ñi Sénégal mën na ne ngeen parce que li ñuy def tey bu ko góor ñu doon président du góor góor ñu doon def jigéen ñi bi ñuy jël seen bale yi di volontaire naan ñoo ngi bale yi demuñu ci maire demuñ ci ministre demuñ ci kenn mais jigéen ñi elles ont dañoo démarré ak seen propre force ku nekk génnee bale yaayam génnee bale koñam ñu di ko def seen bale di damm ñu leen romb di leen jox 1000 francs et sant ñuy ket bu jënd ay bale ba mat mais kon ñooñu su fekkente ne émergence Sénégal dañ koy woote parce que environnement la bu xel yi sellee dëkkuwaay yi set kon ruu yi day wér bakkan yi sell te fan yi day mën a gudd te fan wu gudd ak wéer defe naa ni mooy jàppale réew. parce que réew bu tawatee président bi am na problème mais un président moom il se décarcasse le président Macky Sall est Japon mi ngi au Tokyo mi ngi Londres mi ngi Amsterdam le président est partout uniquement di décarcassé wu pour libérer la population sénégalaise parce que xam na li fi nekk bu ñëwee même su amul dara on doit l'applaudir tàcc ko tatagal ko ne ko président gàcce ngalama mais di ñëw di président dem ba ñëw di sonn nekk Thiès Malick Gakou dem tëdd fële Idriss Seck tëdd fële ku nekk fa la neex bàyyi ba ñu tam suñu xot président bi nga xam ne moo fi nekk di ñu jàppale ñu jël sa président la ànd ak ñun do advégé di ko sànni xeer di ko saaga ndey ñu bu ñu goree dañ naan leen dem leen parce que kii au moins moo doon fanaan cees moo doon fanaan Sénégal moo doon fanaan lépp ak ñun kon on a fekk que suñu président góor dëgg daal xam naa ñu nga xamee ci leen tey Thiès ma leen di wax Sénégal ngeen nangu leen jaamu yàlla première mooy nangu ndogal ni ko waa Makke ba ñu woon ci rasulullahi waa Mbàkke bañ ko Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul ba mujj ko nangu tey xéw li saan ba ñu jëriñu te fekke wuñ ko noonu laa bëggee ñu nangu ndogal li parce que président c'est désigné durant et pendant imaginaire moo wax lu ndaw te nga xam benn guddi benn guddi juróom-ñaar fukk junni doomu aadama di judd yàlla xaaj ko ñii ay wàll yu ñii ay wëyu lañu xutba ak labdaar yàlla ni wàll yu wëyu xutba ak labdaar man may seen borom maa leen sàkk waaye mbindeef bii seen biir mooy jiite ñëpp sëñ Sidi Moxtaar moo fi ne sëñ Cheikh mi ngi fi kii maama mooy waa kër maam alaaj njëgën yi kolle rek Serigne Touba waaye xam nga lu ñu nangu ñoom ñëpp tey bala kenn dara dem président Macky Sall parce que Macky mooy kilifa mbooleem wàllu yu ak wuyu bu nekk Sénégal loolu la doomu aadama war a nangu danoo dañu ko war a nangu maa ngi jéggul li ma bëgg wax daal mooy lenn ma wax leen ni leen yow président Macky Sall yow laay wax nga xam ne Thiès a pris ses devants action pour uniquement soutenir nañ jaral lu ne ñu dugg ci dëkk bi dugg ci feneen barki Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul ñun xam nga lan la ñu bëgg xam ñu xam ne Idrissa mi fi juddoo maali Gakou mi fi juddoowul bu demee ba am maali Gakou dugg Thiès bëgg fee wut ab benn affaire maa ngi jégalu ci kàddu bi nag bu ko sama mbokk mbir yi gisee déggee ci télé bi à travers le médias buñ ma meree ndax dafa loo xam dañuy ko te metti ma man li ma gën a bañ sama àdduna koo ma sous-estime boo ma sous-estimé rek moo la sama bopp maanaam xeeb ma mbër yi barki Cheikh Amadou Bamba ay doomu aadama koo jox mu la may jël sàkku ceeb yiw ko sama yaay mais kuy dundool yaayam lu mën def ci àdduna dimbali sa waajur war maa ko suñu borom teg na la ci kaw nga bëgg a jël mbër yooyu naan mbër du ñu ay nit ay dof lañu waaw mbëri bu dee ay dof lañu maa li gàkku ak li nga def ci mbëri yëpp nga dem ba géej waaye def fa lu ne après wii wii dana faa gagné kon kooku lan nga a nga ñëw la nga xam ni Grand Thiès kilifa ay gor fu ñu nga bëgg fee taxaw de naxe loolu mënta ne ku ay boo ñëwee ci nit ñi dañ lay rey en tout cas éveillé wu nañu maa ngi jégal lu ma neex daal mooy Thiès Sénégal maa ngi leen di nuyu. di leen gërëm tous ensemble derrière le président Macky Sall. mais nga fas yéene liggéey si sa mouvement. alors que nañu déglu nañu déglu. maa ngi jégalu parce que ba Babacar question bi nga posé am na solo trop parce que Babacar Babacar Ndaw mi bu Sud FM maa ngi koy nuyu de passage nuyu waa rajo yi fi tey yëpp télé bi média yeeg tout Babacar nee na ma lan moo tax ma bëgg a liggéey sama biir mouvement biir APR. lu tax desoo biir APR liggéey fa nga fal sa yoon. waaw lu tax ma biir APR liggéey fa maa ngi biir APR ba tey parce que un mouvement bi nga xam dama ko créé parce que je vois que ni l'APR dafa am benn affaire bu mu am crise bu APR am Macky a de bons éléments à Thiès am na ko fi ay gars yu baax yu fi nekk yoo xam ni Macky la les a bien choisi pour ñu liggéeyal Thiès mais dafa am lu fi manqué j'ai constaté benn bruit bu ndaw bu nekk Thiès entre mes frères de parti bruit bu ndaw te bruit boobu. si ça continue ça peut détruire beaucoup de choses dina am lu mu yàq j'ai décidé nag dama ne au moins mais amis d'en parce que un groupe d'amis c'est une association un groupe d'amis bien consolidé c'est une association ma ànd ak samay copains samay amis d'enfance wax leen ko ànd ci ak samay sister ànd ak sama xarit yu baax yi nga xam ne ñu ngi fi mu ngi nii ñoom ñëpp a ngi fi teew fàttewuma kenn du ma ci lim kenn waaye daal xam waa ko ñi ngi man mais ma waxtaan ak ñoom kenn ak kenn mouvement bii nga xam ne maa ko démarré kooru daaw la laa démarré mouvement bi inspiré wu ci man maa toog ak sama frère bi sama doom la muy kii nga xam ne moo di Badou sekk mi ak bu sama doom ñu toog man leen boo ñu ne waa ma ne APR maa ngi ci mais y a beaucoup de te bruit boobu barki sëñ Ba man c'est que j'ai le courage d'affronter ma peur d'affronter la peur d'autres mooy affronter fulu APR am espace booy jaar Thierno Alassane Sall mën a jaar ci directeur Siré ja jaar ci Abdou Mbow jaar ci ñu waxtaan ak ñoom pour lan éviter dispersion bi nekk APR parce que comme le Macky Sall président le président Macky Sall a pris le pouvoir sans rien casser sans rien faire de vulgaire kon man dama ni président boobu jar naa suivre mais kon dama jàpp ne Macky Sall bu fekkee dafa def loolu ba jël nguur gi mu rafet lool damaa bëgg li ci des ñu mottale ko ni ñu koy mottalee mooy sagesse Sénégal sagesse la discrétion ak discipline ni Macky Sall doone ba jël nguur ñu continuer ko ni ñi yërëm jaam yi man man war naa mën a yërëm jaam yi naa yërëm jaam finalement ma créé un mouvement dem waxtaan nga xam ni wax dëgg yàlla c'est mon frère di la di woo effort man semon mon très cher frère il me l'a démontré mooy le directeur Sirédia Sirédia ñoo toog dama waali yow téye mon frère parce que gëm naan dangaa dugg te téye ambitieux nañ laa lay jàppale. mais waali Sirédia jiitewul APR à Thiès. Sirédia jiitewul APR à Thiès mais il mérite d'être le premier de leader de l'APR à parce que il nous l'a il nous a prouvé Sow. Jean Pierre oui Jean Pierre. ko mën a invité mais duma ko invité je ne vais pas l'inviter parce que bon euh, peut-être mën nañu ko gisee neneen parce que instant bi ce que j'ai à faire ko def mais c'est un frère barki Seexul Xaddim c'est un frère c'est un ami. le maire de Thiès le maire de Thiès Ouest. c'est un frère c'est un ami. qui a beaucoup pris soin de moi barki Mame Cheikh Ibrahima Fall. avant donc écoute. je le dis haut et fort parce que je ne à personne ni au président de la République d'être intermédiaire entre moi et mon frère mon frère c'est un frère la famille c'est une chose sacrée on de même père et de même mère maa ko topp ñu bokk ndey ak moom amul lenn lu ko metti ci li ma nekk APR gars yi dañuy wax naan son frère géré wu ko barki Mouhamadou Rasulaay maa ngi koy di Aliou Sow tey Aliou Sow su ma jëloon tey dugal ma ci maire bii may liggéey mbaa mu jël oto taxuma ko may dawal Thiès dinañ ko ŋàbb Thiès qu'est-ce qu'ils vont dire mooy dafa jël ay rakam dugal leen ci biir bàyyi dëkk bi barki Cheikh Amadou ma Khadimou Rassoul non je ne voulais même pas aborder cette question là bëgguma ko mais je te dis ni il n'est pas mon adversaire politique sax naa ko wax nag politiquement ils sont trop minuscules devant moi en politique les poulets d'Idrissa les poulets d'Idrissa Seck sont trop minuscules devant moi fekkente ni Siré Dia euh, quartier ba mu dëkk bàyyi sa wewu tànk def na fa lu mel noonu mu law ci beneen quartier ba ci sama xarit baax bi toog dëkk ñetti kàddu ñu foo foondoo yorandoo màggandoo mu jël ko dugal ko poste muy Baye Cheikh mi ci ginnaaw ñetti kàddu la dëkk kii mooy combi c'est un ami mu dugal ko mais le problème mooy man en tant que Wally Seck su ma volontaire oo ñëw taxaw Grand Thiès volontaire ak le mouvement tous ensemble fas yéene liggéey APR liggéeyal le président Macky Sall kon bu fekkente ni comme lii ngeen def tey bu demee ci kaw médias yi kontaan yëg ko Sénégal xam ne y' a un représentant de l'APR un lion de l'APR un frère de Siré Dia un élément du président de Kéno kon je dina xam la mooy Grand Thiès dëkk bu mu sa dem dëkk bu mu sa dem da ngay ànd ak ka jëm dëkk soo fa mu sa dem da ngay ànd jëm te Grand Thiès bu dee ab dëkk la Siré Dia mosu fee ñëw te incha allahu rabbi man maa tax Siré Dia ñëw fi parce que famille bi nekk femme de développement li Macky Sall gën a bëgg femme femme développement parce que avec la fondation de Marième Faye Sall mën a gën dimbali les femmes parce que femmes yi décarcation di bare suñu koñ koñ bi léegi pour nga gis salte boobu dafa doy waar j'ai décidé de rouler ensemble man ak le mouvement tous ensemble defar Sénégal ku ko dégg ku ko dégg ci Thiès war ngaa mën a ñëw ñëw nag ñu ànd sone parce que cross fu mu sone dinañ ne cross bi fan la sone bu dee église ba ils vont répondre bu dee à la mosquée les problèmes vont répondre kon la cloche va bientôt sonner te ça a déjà sonné. ak projet yi déjà sonné parce que j'ai sonné la cloche que Siré Dia attire l'attention à Grand Thiès je le dis au fort devant son frère l'honorable euh, Chérif Dia. ñu xam ne vraiment c' est a beaucoup soutenu son à travers les jeunes. parce que comme ce que faisait Essa Oumou Mariama mooy. tout est possible dans la vie tout est rien n' impossible man ak sama gëm ak sama jom ak sama ngor ak fu la ful ma ànd ak sama copain d'enfance di ko def je crois que ni bu ñu gëmee seen bopp comme ni ma gëmee seen bopp man kii magam comme ni ma gëmee Siré Dia li ma wax dégg naa ko. te xam naa qui je suis man en politique il ne faut jamais dire jamais dama koy wax devant la presse parce que mën naa waxaat suba mais pour l'instant c'est un mouvement tous ensemble defar Sénégal on ne peut pas dire defar Sénégal sans accompagner les ambitions du président je ne peux pas être opposant comme me le disait mon père mon conseiller mon idole en politique l'honorable Issa Kante yàlla ko yàlla yi run la ma doon wax ndaw du opposé wu leen ngeen nekk benn am jom am ngor am fula ngeen tàllal loxo président ñu defar Thiès man je crois beaucoup à ça il faut ñu defar Thiès ay booyee ngi fi quand on les finance dañuy dem ay pula ay booy yu am jom jóge engrais suñu fal association association jigéen ñu fi nekk femmes yi bale te incha allahu bi dama leen di wax tey samedi la ñu ma woo ñu bëri na ma waali ñii ay salon lañ yor ay jeunes filles ay mais li ma gëm mooy que ni wax naag Serif mii lu leer du ma bàyyi ma fen dinañ wax ak Siré te wax nañu moom nekk na au courant que fépp foo xam ne ci Thiès Grand Thiès laa koy tàmbalee femme yi fi nekk di bale ñu recruter la ñoom ñëpp on va les équiper ci ay bale dootuñu ko jënd seen xaalis ci ay t boo xam ne identification dootuñu jëlee seen xaalis ci ay tame et tout ça li ñu soxla parce que koo xam ne da am problème loo xam ne da nga koy def sa njaboot doo ñëw jël sa alal di ko jëndee bale. pour volonté de sa dëkk kon ñi xam ne ñoo ŋànk dëkk bi ñun di waa APR war nañoo jël ay moyens gestu femmes yooyu def ci ñoom. wala problème APR fii problème APR exactement amul problème soi-disant problème mais du problème. parce que problème bi du lenn mooy peut-être problème de parce que y a beaucoup de à kenn ku nekk yaakaar ni yaay gaynde gi kenn ku nekk yaakaar ni yaa war a mën di jiite Thiès te pourtant xëccoo bi du loolu ku nekk da ngaa war a toog sa fauteuil fees ko del li Siré Dia di def.

bu Macky Sall ne Sénégal émergent un Sénégal émergent boo ko may gëstu à Thiès il faut voir les activités et les actes posés les actes yu concret posés par l'honorable Siré Dia parce que plus de cent personnes cent personnes rek boo ko cent personnes rek boo ko jëlee à Thiès ñuy liggéey loolu ñaata la mais bu ko Thierno Alassane Sall defee du Mbow def ko keneen def ko kon Thiès leader door fi taxaw nañ xam ne Macky Sall gestu nañ Thiès jëm kanam mais barke sëñ Touba yéen presse bi développement Sénégal participe leen ci vous n'avez pas le droit de parler mais vous avez le plein droit de ne jamais rater l'occasion de faire parler posez-moi n'importe quelle question je suis prêt à vous répondre adéquatement lay répondre les questions je vous dis que ne l'honorable Siré Dia li muy def bu ko ñëpp defoon Thiès day mokk keneen dootu fee xalaat da ñëw li ñu bëgg nag mooy na ko yokk ñu teg tiiloo leader Macky Sall wax ak ñoom yokk lu mel noonu satoo Thiès bu ko defee Thiès waay su bilan jotee Macky Sall teg bilan am Thiès waay nag boo ñëwee yuuxu naan ci xol yi ngeen ma def ñu ko xol yi nekkatoo ci xolu Thiès Serigne Touba moo ci nekk. benn question laa bëgg a posé waat. beneen leen ko. te billaay Serigne leen ko parce que Abdou Mbow Serigne avant les frères il s'est raconté tous kon dama bëgg ñu xam ni euh, sagesse boobu nekk ci président Macky Sall nekk ci ses ministres et ses employés. ces travailleurs na law ñëw ci ñun mooy Thiès mais lafa amoon noonu mënta ñàkk en politique mais dootul am dootul am mënta ñàkk mais su dee ça reste dans l'APR ça reste dans l'APR te boo léegi su fekkente ne am na kenn ku taxaw bëgg ñëw jël les devants à Thiès ñeneen ñi xam ne muy Siré Dia wala Abdou Mbow ñeneen oppo ñeneen parti adverse xam ne kii bu jëlee dëkk bii bu yor bu ji jiitee Thiès du dox on va faire guerre guerre boo xam ça reste dans l'APR bu le président Macky Sall dégg ko régler problème bi mu fa on va éviter tout ça on va éviter tout ça parce que loolu moo perte loo ku nekkoon Thiès ku nekkoon Thiès bu loolu perte loo guerre entre les frères de partie du ma wax benn tour mais guerre entre les frères de parti c'est mes frères ñenn ñi je les ai formés en politique ànd accompagné leen ci lu ne loolu nag xoola ba daay loolu ngay wax man doon naa ko def dem ci réunion dóor mu daanu boobu xam nga lale la woon inconscience mais 44 ans je ne peux plus être inconscient les erreurs que j'avais commis à l'époque si sama passé moom laa dajale mu def l'ensemble de mes erreurs moom la dajale mu consolidé ko mu indil ma benn expérience bu extraordinaire moom laa récupéré la jeunesse thiessoise erreur yooyu ma ko moom laa dajale mu expérience ma dajale ko pour indi ko la jeunesse Thiès wax leen pour li ma dal bu mu leen dal opposé wuñu saago ju président jeunesse malsaine moom Thiès parce que le président bu ñëw bi bu dugg si na Thiès Cees waay taxaw Macky Sall dugg na Cees kenn yuuxoo ko Macky Sall dugg na Cees kenn saagoo ko ndey kon nga xam ne kon Cees waay ñi ngi commencé yeewu te ku ma ci waxal barki sëñ Tuubaa mu ne ma noo waali grand am na yoo xam ne amatul ñun kenn duñu opposé loo d'ailleurs yaa que des nobles types ici kii c'est un ami c'est le représentant des jeunes de l'APR à Tivaouane mooy seen chef mi ngi nii il est là présent y na mon ami les Babacar Diagne kii ay da des femmes braves et tout ça ñii ma dajale nii amu amu ci kenn koo xam ne ñàkk nga solo ba tax kii ma koy présenté c'est Thérèse Diouf promoteur lamb la ñëpp xam ko à Thiès mu bëgg président Macky Sall bëgg ñëpp ku ma ci wax jógal da ngay jóg man je sais très bien laa où passé ba récupérer les éléments de Macky Sall les éléments perdus parce que un élément perdu bu ne am na lu tax maanaam da wàcc sa yoon da réer leen réeral nag dootul am Macky Sall di nga wax ni ko leader na wax ak ñoom ñu répondre à l' appel des populations wala boog ñu xam ni ñuy def mais bu ñuy décarcassé wu dañoo bëgg le président dégguñu dañoo bëgg ñëpp xam li ñuy wax mooy lan dañoo bëgg xam xam en tout cas je vous dis une chose j'ai pris décision de ne plus permettre à quiconque de salir la réputation de mon président wala di honorer di déshonorer sama pays parce que xas président xas président saaga ab réew la engagement total lañ jël Macky Sall mu neex leen mu naqar leen c'est la première personne du singulier au Sénégal Macky Sall non mu neex leen mu naqar leen Macky Sall est la première personne du singulier parce que ku mu neex nga ni je ku mu neex nga ni je suis je suis je suis et cetera je suis n'importe quoi mais je suis président Macky Sall rek ko koy wax. waaw ah, mais euh, euh, euh, yow sa diggante ak sa wasila waaw mais na ne digganteem ak président Macky Sall neexatul lu tax yow nga toppoo ko si yoon boobu nga bëgg jàppale Macky Sall. waaw maa ngi jégalu ñu waxtaan tuuti waaye ma ne Babacar Ndao question bi nga posé nag am na solo trop. te d'ailleurs je ne permets à personne déggu man la mu dugg sama digganteeg li nga xam ne mooy sama frère ak diggante sama mooy sama marabu muy Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni man ku ma xam. man Waly sew Kramnori ni du ma dund lépp loo xam ne dul Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul te Cheikh Amadou Kara Mbacké Niori mooy général Cheikh Amadou ànd ak moom di liggéey waaye lépp daal le cadre de la religion islamique dans le cadre du mouridisme may ànd ak moom di décarcassé lu mu wax loolu la lu mu waxul du loolu ñun soldat loolu ñu liggéey waaye lii may def nii ça concerne la nation te la nation l'intéresse moom Cheikh Amadou Kara Mbacké nation bi intéressé na ko lépp intéressé na ko man Waly Sow je soutiens totalement le président président Macky Sall bu demee ba xëy na mook Cheikh Modou Kara Mbacké nu am nañu nu ñu xaajale ko loolu Cheikh Modou Kara xam na ko loolu Macky Sall xam na ko Macky Sall sama président du ma lëj men mbiram kee sama sëriñ sama bés du ma lëj men mbiram mais je vous dis que ni en tout cas sachez bien que ni Waly Sow Kara Noreyni et derrière le président de la République Macky Sall et de tout cœur maanaam si politique est-ce que day wane ne bi ngay wax les députés qui se voient à l'Assemblée nationale xam nga rôle lan la pour ngeen xam ko yéen un député c'est la voix des sans voix ñi munul la wax yàlla di waxal député yi dañoo waroon a jógee dakaar di ñëw Thiès comme ni ñu koy defee ñëw di toog Thiès bu ñu toogee ci recevoir chef de quartier yi recevoir maire yi recevoir ñëpp comme ça ku ñu wax sa doléance ak imam bu ñu demee soumettre cas yi foofu comme ça gars yi gars yi taxawal Thiès mais gisuma benn député Thiès boo xam ne yaa ngi ñëw tey fii di seen di wax ak ñoom. mais un Wally Seck qui se décarcasse pour sa région un Wally Seck qui se décarcasse pour son pays mais quand bu ñu ma defee devant man ak ni ma mel ku ne xam ne ne oh Abdou maa ngi jégalu mais dëgg duma ma ko raay te njëriñu askan wi jar na ma lu ne man xalaat naa ci li may nekk nii dem ci bu ñu dégg ma ci ba ma taxaw lii ku koy def bu ko avancé lii may def tey su ma neexul léegi mu jëriñ ñëpp. su doon sama sago Wally Seck ça peut être bien impossible avec l'appui des avec l'appui de Dieu tey lay tàmbali wax nga du wax nga leen ko ñu dégg ko incha allahu rabbi je vais m'imposer comme tout un chacun et je vais le prouver à Thiès. Siré Dia ministre am ministre de est ministrable depuis sa naissance. voilà. Siré Dia est avec sa noblesse. Siré Dia il est né avec sa générosité sa piété Siré Dia est nee naa la Siré Dia est ministrable depuis sa naissance tey nii nii nii je veux que le président Macky Sall lii Siré Dia la Siré Dia maa bëgg sax mu jóge poste Siré Dia ñun ak moom ba biir présidence Siré Dia à côté du président c'est le Sénégal émergent c'est la faillite des opposants loolu moom je vous le dis à surtout parce que combat bi yëpp li may wax yëpp na ngeen xam ko loolu képp la mooy que les mauvais mauvais opposants se tairent te ñoom ñëpp qu'ils se taisent que les mauvais opposants se taient. waaw mais booba démocratie du am. ah non mais démocratie démocratie mën na am instant bi on est en temps de paix le Sénégal est un pays émergent le Sénégal est un de droit mais on a le droit travailler après les élections il faut laisser le président travailler mais président le président qui a pris sa sa nation difficilement le Sénégal le Sénégal euh, tege ci loxo président Macky Sall difficilement la ci tegee maa kon donc je crois que ne Babacar ba nga ne ma euh, euh, loo ma wax léegi ne ma Sénégal mais maa ngi jégalu def na nga ne ma Sénégal excès non il faut reposer la question parce que instant bi dama commencé tàng du trop parce que y' beaucoup de.